Euh, salaamaaleykum mbokk yi ñi ngi am contentement mbégte di leen nuyu bu baax a baax a baax a baax di santaat sunu borom bu baax moom ñu may fekkee ak tal ba ñu mën a dellu siwaat fii nga xamante ni moom moo di euh, wasaare euh, làmb tey nag ñu ñëwaat ak beneen façon indilaat leen ki nga xamante ni euh, champion bu mag a mag la defe naa ni kenn du ko présenté kenn ñu gën koo xam ci super étoile euh, waaye mbokk yi laata loolu ñu ngi leen di wax ni ngeen daal di dem ci chaîne bi abonné euh, bës cloche bi cloche bi nag boo ko bësee di nga gis mu daal di boot ñaari nopp ca kaw moo wan ni saa boo duggee ci vidéo bi wasaare saa bu ñu dugalee vidéo di nga ko mën a am en exclusivité di am métit nat di am naqarlu bu ñu xam ne ñu ngi koy naqarlu xew fële nga xamante ni moom moo di Brésil ñi gën koo xam ci Akon di euh, superstar bu mag di suñu sac euh, euh, ci États-Unis d'Amérique partout dans le monde waaye nag mu demoon fi nga xamante ni moom moo di Brésil présenté fa li nga xamante ni moom moo di Sénégal def show bu mag a mag mag mag waaye nag ca biir show ba am na ca li nga xamante ni mooy di naqar bu ko fa dal nax lan dafa dugg ci yeneen i nit ñoo xamante ni du ñu ay xeetam maanaam Euh, doon ñu ay sénégalais dugg fa ak seenu jama waaye ba mu génnee sa ñooña jëluñu seen ba mu dem ca beneen wàlla gasades génnit jëluñu seenam euh, mu dugg ci ñi nga xamante ni ñoom la présenté di réew réewum Sénégal euh, ba mu fa duggee ba génn ci la ñu yow sàcc li nga xamante ni moom moo di euh, seenam boobu noonu mu takkoon ci baatam mu nekk loo xamante ni rafetul kenn mënu koo rafetlu ñi ngi koy métti lu bu baax a baax a baax a baax a baax di ko di ko si massaw bu baax a baax ginnaaw loolu mbokk yi ñu dellu siwaat ak yéen ci wasaare làmb Euh, super maa ngi lay nuyu. auzubillahi mina saytaani rajim bismillahi rahmaani rahim oh, Etienne Etienne ginnaaw bañ sant yàlla ñu ngi jëli ci yonent bi di sant suñu ñaari waajur euh, di rafet lu ñëw bi ngeen ñëw fii nii di leen dalal di leen wax welcome euh, di nuyu waa Amérique nuyu waa Bronx bi nga xam ne fi laa dëkk di nuyu encore Sénégal ga nga xamante ne fa laa jógee euh, sama supporter yi fa nekk maa ngi leen di nuyu bu baax. Mm-hmm. Euh, euh, di leen wax ne nam xam naa namoon nañ ma waaye man maa leen raw. Mm-hmm. di ñëw rek encore si ma si si mi nga xamante ne nii dafa demoon si beneen réew pour mm-hmm. présenter fa Sénégal. xew-xew bu mel noonu dal ko fa ñu ngi koy métti lu di ko wax Moussa. Euh, xëy na bu ñu demee ba ci kanam gën a dugg ci waxtaan bi gën a dugg ci waxtaan bi euh, mbokk yi ba tey ñu des seeg ki nga xamante ni euh, moom moo di super étoile ñu fekk la fii ci si sa kër gi macha allah nga toog tey jàkkaarloog sa télé di seetaan football kon da ngay faral di seetaan football. waa Etienne nag man xam nga ne <laughs> sénégalais la mhm. te ku wax senegal xam ne pays bu bëgg sport la. Mhm. muy ci côté làmb muy ci côté basket muy ci côté football ay nit ñu am talent lañ ci quoi moo tax bu euh, ma toogee te defuma dara damay damay damay damay damay jàpp sama télé di seetaan match yi wala basket quoi wala làmb. ban ban yan match nga ban match nga doon seetaan nii jamono jii fi ñu la fekk nii. waa léegi maa ngi doon seetaan euh, Marseille laa doon seetaan ak euh, Paris. ak Paris. waaw. Paris. Paris mooy say eh, Paris mooy kan lañ kan lañ dóor non jeexul woon nag parce que bi ngeen ma fekk nii dama da fekk may seetaan euh, xamaguma fan la match bi di mujjee. waaw waaw kon mbokk yi ñoo ko déggandoo gis ngeen kenn ku si nekk ak li nga xamante ni moom la yàlla def si yow moom nga bëgg moom euh, yàlla dafa dogal sport la bëgg si xolam euh, ba nekk mbër nekk champion boo xamante ni def na ci làmb lu rëy rëy rëy super étoile boo ko déggee euh, dégg nga ko ci xadar mën dóor mën bëri super naka nga duggee ci làmb. waa Etienne sant yàlla rek parce que làmb dañ nekkoon dëkk ba. xëy na ñu nekk ñu nekk ak suñuy suñuy mag yu baax yoo xamante ne dañ doon def làmb euh, ñu gis ni ñuy ni ñuy bu ñuy dem làmb ñu ànd ak ñoom euh, ba biris boobu dugg ñu. Mm-hmm. léegi ñun itam bu mbapat amee ñu dem fa di dajeeg suñu moroom yi di di leen daan souvent ñu teg nag wala xaalis ñu dem gañe ko xam nga euh, noonu lañ dugg si làmb parce que suñu mag yooyu. bu ñu demee bu am si lamb dara rek ginnaaw yàlla ñoom la parce que ñoom lañ gisoon ñu koy def ñu dem bu am bëgg-bëgg bi dugg ci. ñooñu ñan mag mag yooyu ñan la. waaw mag yooyu euh, am na sama benn grand boo xam ne presque mën naa ne lu mu am si lamb rek dama ko koy sant yàlla. muy euh, benn grand bu ñuy wax Mbaat Mbaat Faye presque moom ma dugal ci làmb sama doom bàjjen la bu musaan di dem entraînement daf may wax kaa ñu dem ñu dem ba gis ni muy bëree gaa yi xam nga souvent man itam ma dem ci samay moroom di bëre ak ñoom buy dem lamb yóbbu ma bu gisee catégorie boo xamante ne war naa faa mën a dugg mu dugal ma fa euh, souvent ma indi drapo noonu laa def bo gaa yi commencé ma gëm ne ma lag affaire bi yow la léegi bu ñu amatee lamb ju mag ma takk samay bagage dem li ñu fa teg lu bari bëri bari dama koy jël indi ko. Mhm. boobu fan la woon. boo maay woon Jurbel boo maa ngi woon Jurbel nekk si mbappat xam nga euh, ci laa nekke noonu nekke noonu ba am sama benn grand bu baax boo xam ne xam naa sa turandoo la Etienne Etienne Ngom mhm. euh, gis ma ne ma vraiment gis naa ne gars yi li ñuy def mënuñu la mhm. comme mënuñu la nag da nga war a def fulla ak fayda mhm. euh, góorgóorlu ci xëy na liñ ciy am bu sa bu ci sa warseg nekkee mun nga am ci mon nga ci am dara parce que gis naa gis naa talent boobu ci yow mun naa ne loolu moo ma ba euh, ma dugg si làmb ba yegg si fi ma yegg si tey quoi. Euh, tey euh, kon yaa ngi woon ci mbapat yi doon doon doon doon doon doon doon ràññee fa nga xamante ni moom moo di Jurbel naka nga duggee ci ci ci ci biir làmb ak ak ak Ndakaaru ndax ku ne xam na ni làmb partout dans le partout dans le monde la mais maanaam am na fa base boo xamante ni moom lañ ko gën a gën ràññee muy Ndakaaru. waa ni ma duggee ni ma duggee si Ndakaaru yaakaar naa ne dama nekkoon Jurbel doon bëri si mbapat yi bu ñu yàgg ñuy am ay combat stade Ely Manel Fall yaakaar naa def naa fa lu war a mot ay ay six combat sept combat yoo xamante dama ko gagné ñu gis ne mbër yi doon joge dakaar di ñëw Jurbel ñoom laa doon amal ay combat di leen daan léegi bi ñu demee boo xam ne làmb yi nag dara ngi si ci laa doog a jóge Jurbel euh, ñëw dakaar bi ma ñëwee ma nekk ci sama benn papa bu ñuy wax euh, Modou Faye mhm. euh, nekk këram. di dem géej di entraîner di ñëw noonu laa def euh, mu boole maag ménagères yi nga xam ne ñoo nekk Dakar muy ku mel ni Babou Basirou Babou moom moo njëkk a yor moo njëkk a yor sama licence léegi bi mu yoree sama licence mm, ma toog presque at mu utal ma combat maak bëri mbër mu ñuy wax maîtrise moom laa njëkk a bëreel ma bëreek moom euh, ma daan ko bi ma ko daanee amaat beneen combat man ak euh, samtaañing mm-hmm. boobu tamit arène. la quoi. Mm-hmm. ma daan ko muy sama deuxième combat arène. Mm-hmm. noonu daal laa def euh, ci déwén sa laa dugg kala kalaaf. Uh-huh. toj ko waaw ma duggee kalaaf dama njëkk a dugg kalaaf euh, bëre ak euh, mm, Yékini Senior mu daan ma ma bëre ak daan ko amaat beneen combat maak. maa ko Sakajor Saverdik waaw Sakajor waaw maa ngi koy ñaan laataa ñuy ñëw ci li nga xamante ni euh, moom moo di kalaaf bi ñu dikk ci Lansar diggante euh, Lansar ak Caaroy euh, problème ak xaajoo beeg yooyu noonu naka la naka la demee ndax mun nga ñu dellu si tuuti ci ginnaaw expliquer ñu Lansar ak Caaroy lan lan moo leen boole ba damay gis sax ku nekk Lansar wala ku nekk bii Caaroy du ñu bëri seen biir. waaye Etienne loolu benn famille la benn boo xam ne. Euh, li ñuy wax naan kër bu magee rek séparé wu ñaar moo ñu dal xëy na biñ nekkee caaroy boobu noonu xawoon nañ faa bari lool nekk ay mbër yoo xamante ni kenn ku ne euh, foo dem da koy toj ñu bari fa presque defoon nañ fa lu war mot ay dix personnes yoo xamante ni kenn koo koo ci tudd rek euh, xam nañ moom mooy kan. Mhm. léegi ñu dem biñ demee ba mu yàgg ñu xam ne ñun ñi nga xamante ne ñoo jógee côté Diourbel war nañoo mun mun a ber suñu écrit mhm. ci lañ waxtaan suñu biir man Tidiane Faye nees euh, xaaj xaaj écrit bi ñëw formé Lamsar biñ formé Lamsar. boobu ana Sita. waaw boobu Sita boobu Sita mu ngi jamagen mais boobu xele bu ndaw la quoi boobu mu ngi ci mbappat yeeg affaire yooyu noonu. léegi bi ñu waxtaanee loolu ñu ñëw gis euh, Maxime Bergan waxtaan ak moom mu ne ñu waaw loolu mun a nekk la ñu ànd ak moom dem seeti ñi ñu war a xam ñi ñu war a seeti. Euh, dem seeti ku mel ni Cheikh Niang muy président écrit bi waxtaan ak moom mu rafetlu affaire bi ñu woote assemblée générale euh, noonu daal lañ jógee Caaroy mais Caaroy ak Lamsaar benn la woon mm. waaw ñun ñi nekk euh, Lamsaar ñun ñoo nekkoon Caaroy waaw ci la nag ñoom Sita ñoom Mama Lamine mbër yooyu yëpp ci lañ doog a waaw waaye léegi euh, comme dem na ba li nga xamante ni mu nekk ñaari ñaari euh, ñaari écrit xanaa loolu war naa mën a tax ngeen war a mën a jàkkaarloo sax bëri mais la moo la moo indi ñàkk a bëri bi seen biir. non xam nga ñàkk a bëri bi euh, bëri bi suñu biir mën da nekk parce que li tax mën da nekk mooy ñun ñun ñun ñi nekk caa ñun ñi nekk caaro ak ñi nekkoon lamsaar daa am relation bu dox seen diggante. Hmm. depuis loolu dafa yàgg bokkul ak maman biñ toll nii quoi. Hmm. kon buñ demee bo làmb développé ak lu ak nu mu demee ak nu mu mën a mel itam mënuñoo bëri suñu biir parce que relation bi am suñu diggante. kon tey bu la promoteur seet si woon fay la xaalis bu bëri lu tax nga bëri Reug Reug. non Reug Reug sama rak la sama rak la parce que man ak ay magam la woon ñoom Khadim Ndiaye numéro 2 Issa Pouye Khadim Ndiaye numéro 1 Baye Mandione ñun ñooñu ñoo ñoo bokkoon benn écrit. Mhm. boobu moom itam booy la. Mm. muy ñëw di di di di toog. di toog suñ suñ kanam tey du ñu téyeel suñu suñu suñuy dàll ak suñu yére xam nga kon kooku noonu tey lamb mën da dox bañ walbatiku bëri ak moom quoi parce que suñu rakk la. maanaam maanaam ku nga ni daal da leen daan téel ay dàll di toog ci ci ci kii bi nu ñu koy waxatee sax cumbukaay bi. di toog suñ cumbukaay xam nga kooku tey mënul mënuñoo dem mënu adduna mën na neex a neex a neex bañ dem walbatiku bëri ak moom xam nga. liñ mën mooy di ko encouragé ci lim def lim lim nekk. Mhm. xam nga di ko ñaanal di ko jàppale. bu ñu woowee téléphone ñu mën koo xelal dañ koy xelal wax ko jaaral fii. waaye li tax mënuñu bëre mm, ñun ak euh, Reug Reug mooy relation bu dox suñu diggante. Mhm. suñu rak la moo doon ñëw entraînement di ñu téye suñuy suñu dal ñuy entraîné xam nga. Mhm. kooku noonu bu demee bo tey am fu mu toll si làmb liñ ko mën a liñ ko mën a def mooy di ko xelal di ko ñaanal. Mhm. xam nga parce que suñu rakk la quoi. maanaam booy la bu daan toog ci cumbukaay yeeg yooyu. waaw booy booy la boo xamante ne da doon ñëw toog suñ cumbukaay teyal ñu suñuy dal bu ñu entraîné ba pare bu ñu buggee jënd ndox mooñ mom la ñuy yónnee mu dem jëndalu ñu ndox affaire yooyu noonu. Mhm. kooku noonu mënuñoo walbatiku di ko di bëree moom. di bëree dañ koy ñaanal xam nga. Uh, li ci kaw di jël si ay conseils ay ndam quoi. ok kon ñu daal di tourner ba léegi ñëwaat ci li nga xamante ni euh, moom moo di euh, calaf bi euh, tey gis nañu ni calaf bi moom toj nga ko ñu bëggoon xam ci biir calaf boobu noon ñaata victoire nga ci am ak défaite. waaw calaf bi xam nga dama dugg calaf deux fois mais calaf 2010 bi quatre poules la woon man sama poule man maa fa génnoon Garga Mbossé moo gënoon ci poulam mhm. man amoon naa quatre victoire. moom itam mu am quatre victoire gën dem final. Hmm. Eh, maa Garga ñëw finalu man ci laa daane ah, ah, ci laa daane Douglas ci laa daane Malaw Seras ci la daane hmm, kanati en tout cas daal sama poule man maa fa gënoon dama jàppatul comme. ni mu demee final bi kan final man maa ko yow ak kii Garga Mbossé. waaw boobu maa Garga moo ko ñoo ko final. yow yaa daan Garga. boobu maa daan Garga waaw. est nga ñëw tuuti si nekk naka nga daanee woon Garga Mbossé. waaw Garga daane mooy euh, si bëri laa ko daane parce que moment boobu naqari naa bëreel trop parce que euh, dama doon entraîné guddeeg bëccëg bari doole lool mm-hmm. te li may def itam xam naa ko. jàpp naa ne mbër mu nekk si kalaaf bi man maa la ëpp doole maa la daq a bëre maa la maa la maa la maa fit. te booba jamono yaa ëppoon doole Garga Mbossé. waaw même jamono bi sax ba léegi maa ko doole. ba nii nii nii ba ni may waxee ak yow nii maa ko ëpp doole. temps yi temps yi Garga Garga tàng na waa ji. Ah. li tax gars yi di tegi avance bi xam nañ lan la bari naa doole mun naa dóor soxor na mais saa yi bëri nga doole mën nga dóor soxor nga mais garga tamit bëri na doole mën na dóor de. non. loolu garga ngi fii dina dégg de. non loolu mënu feeñ xam na non xam naa loolu mais loolu mënu feeñ sama kanam parce que boo ko ne kan mooy super étoile mu ne nii siet tët waa ju doy waar comprendre kon la ma ko la ma ko defoon ba léegi dafa def si boppam te tey laa ko gën a mun a def lu gën a pire loolu. kon pare nga pour de pour delloo ko revanche. non pare naa pour jox ko rawaas ak ñeneen ak ñeneen. mais soo garga mboose. gar laajuma ko nag nay leer garga. mais bu ma laaj bu bu laajee rawaasam ma jox ko. nga jox ko. ma jox ko parce que euh, comme yàgg na. Hmm. gars di tegi avance bi képp ku ñëw pour jël ko lekk ko rek pare na pour bëri ak. garga loolu problème. garga mën na dóor am doole taxale la. boo ko nee super étoile lañ la bëgg a jox da leen non non kooku du ma ko laal parce que. xam nga mu naan noonu. non day wax li gaa li li moromam yi di wax. yi moromam di wax. moromam yi yëpp kuñ ci seeti da ngay non seetal ma keneen parce que fii la xarit jaar xam nga affaire yooyu noonu mais dara kii la ñuy daw daw ñu leneen de. lan la ñuy daw kii kii la ñuy daw. mais lii lan lañ ciy daw. ah mais xam nañ ko. xanaa du kurpañ ñi da nga yor kurpañ ñu yor seen kurpañ ñoom it ah, dànk. non dafa bokkul xam nga dafa am kurpañ yoo xam ne. maanaam seeni borom maanaam ku fi ñu na rëy mais du doole. du am doole comprendre uh-huh. bokkul ak bii nag. bii ak boo bokkul bii la moo si nekk si nekk mooy ñi ñi ko ñam xam nañ ko man mi ko yor xam naa ko comprendre kan kan nga ko ñama non bari na nag. li ma. Ah, Garga Mbossé moom ngay wax noonu ñam na ko. ñaata yoon. Ah, ah, ñam na ko. Hmm. Malaw Seras ñam na ko. Hmm. Euh, Saalum Saalum ñam na ko. ñamal ñi ngi bëgg bëri. bëri na dafa bari comprendre nga Saalum ba ñuy bëree dafa ma ne arbitre bu soufflé du duma du ma ginnaaw ma ne ko ah na ne waaw ma ne ko amul problème bi arbitre soufflé benn ku laa ko dóor tuñ bi tuñ bi dagg ndox mi di génnee fii bu guuxatee ndox muy génnee fii. bu guuxee ndox. mi di génnee fii ci suuf. maanaam da ko dóor fii laa ko def bañ yi moo ñoo jam fi ba ba muy feeñ ba ba kii bi di ba dër bi bën bu guuxee ndox ndox mi fii lay rogalaat ci suuf. ay kurpeñ si dafa am koo xam ne nag. Ah. <laughs> sérieusement moom laa dencal kurpeñ bi quoi. kan la parce que côté bu ne dama ko faa ree bu gaayeen. munu kan la ah Malick laal nga laal nga laalaake nat. Malick Niang nga xamante ni moom nee na. cent personne lay xeexal. moom ah, xeex bu mu jàng cent personne la ci war a xeexal yow nga ne yow Malick ñaa nga ko dencal. Malick day soob Malick fii la taxaw ne moom xeex bi mu jàng ah, cent personne la war a xeexal ma dix personnes war a xeexal parce que maanaam yoon mooy ko mu xeex ak benn nit. Mhm. te benn a da door mu wàcc. kan moo ko da ko door mu wàcc. yaa ngi dégg te avant muy def loo avant muy jël avant muy jël avant muy jël combat boobu sama combat moom lañ lañ lañ njëkk a mm. nga. mun naa ne ça fait cinq ans ngi nii chaque année mu dem mu am promoteur bu dem see. bu ko dem see léegi léegi kon yow su ma la déggee dafa mel ne da ngaa góoxal mer Malick Niang. non bu baax moom ak ay moroomam du moom kese de. ak kan moom Sa Thiès am euh, Moussa Ndoye. Sa Thiès nga laal waaw ñooñu yëpp. Moussa Ndoye dama leen dama dama leen. ñu dangereux rek laal. non mais ñooñu ñooñu nga Malick Niang Moussa Ndoye Sa Thiès laal ñëpp a dangereux. yee dinaa leen laal parce que xam nga li tax dinaa leen laal. Hmm. Ah, sa bi muy bëree ah, Jordan man maa daan Jordan. Hmm. ñu dem ne ko sa combat ak Super Étoile. daan Jordan taxul nga daan Sa Thiès. mais boo mais mbër mi nga xam ne moo nekk ci victoire yaakaar naa ne moom nga war a gën a mën a bëreel ne moom nga war a gën a bëgg a bëreel ne ki nekk si defet am déet. Hmm. man maa daan Jordan ñu dem seeti ko pour man ak moom. comme daal yow su ma la déggee su ma déggee mooy. gars yi dañ lay teggi waaw mu du bëre ak man dem dem dem jëli Jordan mi nga xam ne man maa ko daan kon loolu lan lay nirool kon mën naa ne ñoom dañu ragal. kon yow dañ la ragal. waaw dañu ragal. mais saa lan la ñuy ragal ci Sa Thiès yow yow yow yow. nga ne lan bee dix Kouba dix. <laughs> déggu <laughs> déggu ma. barke Serigne ku ko ci jël ku a ah. ah. no ma ma def la lu métti. mais super super xoolaatal li ngay wax Sa Thiès. Malick Niang ak ak kan. ma. Hmm. Euh, fii nii dañ fay ñëw. Mhm. ngir yokk xam-xam bi ak doole bi. te macha allah bañ ñëwee ba tey ñu ngi ci li ñu war a nekk ñu ngi entraîné guddi di entraîné bëccëg yaa ngi dégg ndax làmb dafa am luñ ci def. Mhm. te bu ñu gijee bu ñu gijee feeñ ci làmb maanaam bu ñu ñëwaatee dañu war a ñëwaat si beneen anam boo xamante ne nii ah, danañ xam ni kii nii li taxoon mu génn Sénégal. Mhm. dem Amérique nag ah, gis nañ li taxoon mu dem.